je déclare ouvert le dialogue du peuple organisé par la plateforme f dialogue du peuple bi nga xamante ne dinañ ko amal ci diirub ñetti fan la justice à deux vitesses ak troisième candidature président Macky li nara nekk ay ponk yi nara waxtaani yi les leaders yu fare ci ku jëgi luñ bëgg rekk mooy xeexal démocratie ak Sénégal bu bees. Tourner la page est devenu un impératif. Oui, un autre Sénégal est possible et on est en droit d'en rêver, pourvu que l'on se donne les moyens, dans une unité forte, de créer les conditions d'une alternative démocratique à la ñi bokk ci plateforme F24 ñoo ngay joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew Sénégal président Macky Sall. ci bépp jafejafe bi nga xamante ne réew mi mi ngi koy dund jamono ji li. aujourd'hui nous vivons dans un pays bloqué où l'économie ne marche pas le social ne marche pas les universités sont saccagées bref il un bouillonnement dans le pays et tout ce bouillonnement. a une seule explication, c'est parce que nous avons un président qui a décidé que quoi qu'il advienne, lui, il va essayer de briguer pour une troisième candidature. si rencontre Bougane Gueye Dany daal na woo leader yëpp ñu waxtaan ak askan wi. ki ñu jàkkaar lool du ay daje ci salle ak ay conférence de presse mooy tax mu dellu ginnaaw ci li mu nekk. sortons allons vers les Sénégalais dialogue du peuple oui mais allons vers ce peuple. kon allons vers ces gens-là F24 woo képp kuy sénégalais. mu sol lu weex ci aljuma gi ñu jëm fukki waxtu ak ñett jàpp fukki waxtu ak juróom te ñu taxaw seen buntu kër yi ci bile bés dinañ ci amal itam ak jàngub alxuraan ngir rekk ñaan jàmm na ñooy ci biir Sénégal.